هذا المفاقر عيسى جنس كرمي وفاز بالقرب والرضوان بالخدم هذا المفاقر عيسى جنس كرمي وفاز بالقرب والرضوان بالخدم حب القديم ومصباح طريقته باستنارت لمن يمشي بلا سلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيجي جيتال ci sunu nuyo as-Seex Muhammadul Muntaqa di ñaanal gudd fan ak wér waaye di nuyu itam Sëriñ Abdul Latif jenn xalifa borom jenne di ñaanal gudd fan gu ànd ak wér ak njabootuk maam Seex Isaa gépp waaye di beral nuyoo bu yaatoo yaatu njabootuk Serigne Balla Faali ci njiital seex Mouhamadul Mourtada waaye ci teewaayub seex Saalih mi nga xam ne teew na fi ak mboolem ñi mu àndal ñëpp nu yëkkatee sunu kàddu nag li ko sabab xam ngeen ko mooy woote bi nga xam ni yàgg nañu ko woote te ren jii di juróomeelu yoon nu di ko woote mooy bis bi nga xam ni moom la ñu jagleel ak Sayxu Isaa Jenn borom jenne di ko amee fële ca Ndakaaru ci bulu bi nga xam ne moo nekk fële ca sees ñu di ko wax bulu unité africaine kon ñu ngi ci woo ñëpp waaye nag di jiital ci woote bi mboolem njabootu sëñ Tuubaa bu ñu tuddee Cheikh Mouhamadul Mountakha bàyyi wuñu kenn waaye ci eh, waa kër Cheikh Mouhamadul Moustapha ba ci kër Cheikh Mouhamadul Mourtada kër Soxna Fadja ba ci kër Soxna Maymunatu bàyyi wuñu kenn ñu ngi koy yëgal ñëpp di ci woo mboolem lu askanoo ci Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasul waaye itam di ko yëgal mboolem seexi sëñ Tuubaa yëpp. bàyyi wuñu kenn ka mu njëkk a seexal ba ci ki mu mujj seexal yoonu murit gépp ñi ngi leen ci woo di leen ko yëgal waaye woote boobu itam duñu ci bàyyi ki nga xam ne moo di njiital réew mi di monsieur la monsieur le président monsieur Macky sàll ñu ngi ko ci woo ak mboolem ñi nga xam ne ñoom la siqal càmmuk Sénégal te muy nguuruk Sénégal waaye itam mboolem ñi nga xam ne ñoo féete ci kujjeg réew mi itam ñi ngi leen ko yëgal di leen ci woo ñi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi ak ña nga xam ne ñoo nekk ci bitim réew te nga xam ne ñooy yëngu ci wàllu réew mi ci wàllu àddina ñi ngi leen ci tàllal loxo di leen ko yëgal bu baax a baax kon daal day mel ni ni ñu ko baaxoo defee rek lan koy defee woote moom benn la pas-pas bi itam benn la mooy nanu ko baaxoo defee fële ca ndakaaru muy fukki fan ak ñaar ci weeru mars wii nu dëgmal ñu di ci woo ñëpp bis bi nag ren jii ni ko baaxoo defee rek bis bu ne bis saa bu ñëwee daañ ko darajaale kenn ci njabootu seexul xadim gi ci taalibeem yi ci seexam yu màgg yi ren jii nag ñu darajaale ko Serigne Balla Faali muy soppe borom jenne ba di xaritam ba di wëllëreem ba kon ñu ngi koy yëgalaat bu baax a baax a baax a baax mbooleem seexi sëñ tubaay yëpp bu nu ko tuddee sëñ Balla Faali nag tur waa fa nekk waaye tudd nañ ko mbooleem seexi sëñ Tuubaa ndax ku tudd sëñ Balla Faali tudd nga mbooleem seexi sëriñ Tuubaa yëpp kon bu ñuy woote ci turu seex itam danuy jaar ci kër sëñ Balla Faali rek woowaay la ñëpp ndax mel na ni sëriñ Saaliw mii fi teew teewal na mbooleem seexi sëñ Tuubaa yëpp di ñaan sunu borom mu yóbbu nu ci ak jàmm nu yegg ci ak jàmm def ko ak jàmm daje ci ngërëmal Serigne Touba li nga xam ni loolu rek lañ ciy sàkku wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñu ngi nuyu ci turu Cheikh Modou Mourtala xalifa Serigne Balla Fally Dieng euh, mu ngi sant njabootuk suñu maam Cheikh Issa Dieng ñëpp di jiital ci sant gi Serigne Latif Dieng waaye di woote bis bi nga xam ne nag njabootuk suñu maam Cheikh saa Dieng mi ngi koy defal euh, di ko koy ñu ngi koy def di ko defal suñu maam Cheikh saa Dieng ca Sow Ndakaaru ca Cissés le 12 mars le 12 mars mu ngi ci woo ñi nga xam ne ñëpp bokk naa ñoom yoonu muri ci woote bi it euh, mi ngi ciy jiital ñi nga xam ne ñoo njabootu Serigne Touba gi waaye di ci tegit ñi nga xam ni ñooy seexi Serigne Touba yi ñëpp bàyyiwul kenn di ci soññit njabootu Seex Balla Fall gépp ñu teewe ko te xam ni moom am na mbégte mu rëy ci bis bi am na ci ak cant gu itam ci lii ñu ko defal te defal ko Seex Balla Fall Dieng mi ngi sant ñëpp euh, di gërëm ñëpp ci jëf ju rafet ji nga xam ni njabootu suñu maam Seex Saa Jenn mu ñoo ko def di ci woo ñëpp itam ñi nuyu ñëpp xanaa di fàttali rek Euh, mbokki taalibe murit yi nga xam ne dañuy ñëw ca ndaje ma ndigal yi nga xam ne sëriñ bi moo ko joxe woon ndax xam nga ndaje moo xam ni dañ ciy fàttaliku dunduk maam Cheikh Issa Diène ak mbokkam ma di xaritam ba sëñ Balla Fally Dieng ñooñu ay murit lañu woon dañuy bëgg képp kuy ñëw ci jataay ba moo xam góor nga wala soxna nga nga bàyyiwaale xel jataay ba ci col gu yiw col gu murite sàmmonte kàddu yi ak wor ma ji nga xam ni moom la barab ba laaj ndax ñun dañuy bëgg mépp ndaje mu ñuy def duñ ko xàmmeek lu ñu doon amal ci biir Touba maanaam lépp lu dagan Touba rek wala ak taalibe bëgg ko dañ koy bëgg waaye lépp loo xam ni Serigne Touba daf koy bañ ci dëkk bi dañ koy bañ ca ndaje ma ñu bëgg yi taalibe yi jéene yi teel a xëy ndax euh, seenub liggéey bi ñoom lañ ko doon liggéeyal noppi na bëgg nañ lu waaye jàpp soo xëyee nga bàyyi ko suba teel ànd ak sa njaboot te teew ci journée ba teewaale fa pas-pas wasalaamaaleykum wa rahmatullah di wax woote bii nga xam ni dañ ci am ndigal ci Serigne Abdou Latif Diène jam yo wa taw di wa nastar li jazaati maam si Issa Diène ñooy woote ci CICES journée culturelle maam Cheikh Issa Diène di ci woo mbooloom njabootu Cheikh Issa Diène gi yëpp ak fédération yi ñi nekk bitim réew ak ñi nekk asi di woote mbooloom ñi nekk Dakar di ko di ko di ko tàmbalee ci mbakk yu fay rek jëwriñ mbakk yu fay mu mu càllareel ñu ko mbooloom fédération bu nekk Ndakaaru Njaay di woo tamit mbooloom sunu soxna yi nga xam ne ñoo aajowu ci maam Cheikh Issa Diène muy soppe di woo képp koo xam ne daal bis bi daal ñoo ko bokk ak umar islamique yëpp di woote ñëpp rek. kàddu yi may yëkkati nag du sama kàddu kàddu suñu waajur yi la soxna mbenn Dieng soxna Bintu Dieng ak euh, soxna Jey Dieng seen kàddu la. ñi ngi woote nag bis bi ñuy woote mooy le 12 mars si saalu CICES bi comme ni di woo fédération daayira Maam Jaara yi nga xam ne ne ñoo nekk Ndakaaru. nekk si àdduna bi yëpp ñëpp ñu ngi leen di woo ci bis bi di ci woo bépp soxna boo xam ne ne yaa ngi nekk ci Sénégal nekk njenne foo mënti nekk di taalibe Cheikh Issa di soxna ñu ngi lay woo ci bisu maam Cheikh Issa bi nga xam ne ne at mu nekk moom la defee ndakaaru ñëpp ñu ngi leen ci woo di soñewaat soxna yi comme niñ ko daan defee rek at mu nekk ñi ngi ñaan soxna yi heure bu ñuy ñëw nañu nañu yiw bàyyi greffage yi muur seen yaram yi ba dara du feeñ ndax bis bi moo ni toll fu ay euh, kilifa di nekk benn soxna boo fay ñëw da ngaa war a sol col gu jot asalaamualeykum wa rahmatullah